좋은 بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من شر شيطان اللعين الرجيم وصلى الله وسلم على الهادي الأمين إمام الله المختار وسيد العالمين نجي قرم يا الله بباه جل سيدنا الإمام عليه الصلاة والسلام مسل الشيطان di nuy ñëpp di ñëw ak yéen وقتان waxtaan bu am solo muy ci lislaam ak nu ko seydinaa limaamu alayhi salaatu wasalaam dundalaate eh, jigéen dëgg lu jiitu lislaam fekkoon nañ muy koo xam ne ku ñu ginnaawaloon la ñu ñu daan suufeel lañu ñu ñu doyadal lañu yoon ba alxuraan àddusi wax ci wax ju xaw a sax dëgër di ñaawlu jëf jooju nga xam ne moom la nit ñi doon def mooy bu ñu daan masa am doom muy joom ju jigéen dañuy kersewu dañuy wane ak gàcc ba ñëgësal seen kanam comme ni ko alxuraan waxe zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadim ida busira ahadukum bil unsa zalla wajhuhu wa huwa kadim nee na bu buñ leen daan masa wax ne soxna si am na doom muy ku jigéen kilifa gi dafa doon mer ba kanamam xonq ngir wane ñàkk ànd wala ñàkk d'accord ci am amu jigéen eh, am na ci ñoo xam ne eggoon nañ sax ba bu ñu amee jigéen dañuy gaawtu gas suul ko rey ko lislaam nag <coughs> bi mu ñëwee dafa ñëw indi jigéen boole ko ci li nga xamante ne mooy di société bi nga xam ne moom la bokk ndax àddina mënul dem góor mënul dem sans jigéen jigéen mënul dem sans góor te jaamu yàlla gi nga xam ne moom la ñu yàlla indee fii ci kaw suuf yàlla daf ko séddale ci góor ak jigéen boo demee suuratu ahzab yàlla mu ngi koy wax di fa tagg li nga xamante ne mooy di jaamam yu tedd yi جناو بموحي بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات بأي بفم يجيخ لم تتنك مويلي أم سولو دفني نيوم نيب أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما مني li nga xamante ne moo di <coughs> jullit yu jigéen ñi ak way gëm yu jigéen ñi ak ñu góor ñi ñoom ñépp ci góor ak jigéen yàlla digg na leen yool bu rëy bu am solo nga xam ne jullit lislaam dafa mas a amal yitte jigéen ci yitte ji mu amal jigéen dafa am lu sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne al ummu madrasatun ida aadattaha aadatta shaaban tayibal aaraq jigéen wala yaay bi nga xamante ne moo war a jur njaboot gi nee na moom yaay dafay représenter une nation mu ne boo ko waajalee moom day <laughs> day jooju waajal nga une nation ci solo gu jigéen am امنا بن سخنا بني وح عائشة دي دومي ينتبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم سخنا ملون دفا دان وحن حوزو نصف دينكم من هذه الحميرة نجن جلسين جن والو دينة تي سخنا سي كون جيجن دفا مسا ام صلو تي الاسلام سيدنا الامام صلى الله عليه وسلم بمو دلوسي دفا فكاتو نيت جيجن نيو اكارتك تي جامو يالا جي يوبوك با تي أنا آجي bàyyi laay sallallahu alayhi wa ne këram góor ak jigéen mag ak ndaw ak xaleel jaamu ga ñoo samaase mu ne naaj ak teel daldi jël jigéen fekkoon ñu beddi ci jàkka ji amu fa woon place seydina limaam alayhi salaatu wasalaam utal jigéen place ci biir jàkkam ne góor ak jigéen ca baabu ba góor ak jigéen di taalibe si kër sariir fa baabu ba ba xool yi fuur dagaani ba amin nga doy na nug jubal bàyyilaay salallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee it fekk ñu jël jigéen bàyyiloo ko tudd yàlla nga xam ne tudd yàlla <coughs> dañ ko jagleeloon góor ne góor jigéen baatam awra la te alquran tuddoon alzakirina walzakirat sayidina alimaamu alayhi salatu wasalaam jëlaat jigéen dugalaat ko ci li nga xamante ne moo di jaamu gi kon bàyyi laay sallallahu alayhi ci mbooleem taxawaayu jaamu yi nga xam ne góor dina fay taxaw delloo na si jigéen ci am solo googu taawam bu jigéen bu jigéen bi mu njëkk am ki mu njëkk am sax ci doom muy soxna maam Mantulaay daf ko jël tuddee ko amaanatullaahi ngir wan ne jigéen cëram ci lislaam mosul dellu ginnaaw ñu ngi nuyuwaat ñëpp di ziar ñëpp di baalu àq ñëpp di ñaan yàlla na nu yàlla dool taw tawféex